li nga wax présentation mooy xam nga kenn du dafa diis ne ci subaak léegi sax saal bi feesoon na waaye yendu dafa diis ba nga xam ni ñenn mag ñi ñu bari dañu xaw a yeweeku waaye ba tey ñi ngi fi nin présenté mooy coordination bi coordination bi mag ñi ñi ngi ko sosoon ci ndigalu kilifa yi yaakaar naa ni sëñ Abdou Aziz Al Amin daana ko wax ci journée yi at mu nekk lu jiitu 81 la sax ca jumaay El Mansour daayira yi daan fa daje boobu temps góor gi Serigne Makhtar Dieng moo fa nekkoon ni ko sëriñ bi di nettalee at mu nekk rek mooy nuy invité kilifa xadra bi ñépp di ko defandoo nu amoon idée ak sëriñ Abdou Aziz Al Amin mu ni nan dajale daayira yi comme que ñëpp ci cheikh na ni wuyoo di ci liggéey nan ko dajale def ko coordination boo xam ne at mu nekk dayre yi dañuy daje au lieu que ñu koy def pàcc pàcc pàcc def journée culturelle Cheikh Ahmad Tidiane ko ko boobu jamono yaakaar naa ne at yu jëkk yi juróom-ñett ñoo ko sosoon daan ko defee defee ko benn at ci buntu juma El Mansour 79 yëf yi xaw a yëkkatiku ndax luy dëgg rek day gën jëm kanam ba 80 nu toxal ko ca grande mosquée ni ñu doxalee bureau bi mooy coordination bi léegi fii nu toll toll na presque ci téeméeru daayira am bureau exécutif boo xam ni am na président ay vice président jigéen ak góor am secrétaire administratif. Mm-hmm. di jigen am trésorier général ba pare tam am ay vice président moy comme lima ma wax jigen ak gor am li nga xamni moy instance des présidents et présidentes Yo xamni ñoy dajé daje balaa ñuy def dara door a ñëw nag am comité directeur boo xam ni bu nu waxtaanee lu nuy décider comité directeur bi moo koy décider comité directeur bi toll na ci mille cent soixante cinq membres loolu mooy bureau bi bi ñu créé coordination bi comme ni ma ko doon waxee en mille neuf cent quatre-vingt soixante-dix-neuf vingt ki jëkk a nekk président coordination bi mooy Alaaji Mbay Diop Sali Alaaji Mbay Diop Sali ñëpp xam nañ ko moo jëkk a nekk président coordination Tidiane ki ci topp bi Alaaji Mbay Diop Sali la ko ki ni wax Alaaji Assane Diouf moom moo topp ci moom bi Alaaji Assane Diouf jiitoo ku di wax Alaaji Ibrahima Ndiaye Atumaan moo ci toppoon bi Alaaji Ibrahima Ndiaye Atumaan nelawee Alaaji Malick Fall topp ci Alaaji malik Fall nag après moom ci baaxu mbokk yi fi nekk teew fi nu teg ci sama jëmm ju amul solo bii Alaaji Cheikh Tidiane Gaye sunu mbokk yu baax yi ngi ma teg ci bopp coordination bi en 1900 en 2016 2016 ak léegi defe ni ña juróom-benn fukk juróom-benn uh, at la juróom-ñaari at. juróom-benn at. juróom at. e bi ñu ñëwee itam mooy ci bërëb bii ngeen nu gis ngeen nu fekk. li ko dalee ci Mbaye Diop Sali ak Assane Diouf. lanu amoon bërëb bile wante taxul woon tam bërëb bi ñoñoon ñii nga xam ni ñoo jiitu seen yéene ëppoon na lii ndax ku nekk